وأندابا فمنكم أربابا في البلاد هربان والله سيقتدان وسيري فإبراهيم I'm

فبها يرفع الجو العظيم وإنه بفيد ينال الدين رفع لوائي بفيد ينال بفيد ينال رفع الدين muy liwaawul hamd musul daanu wante Baye radiallahu anhu nee na yow mi nekk Sénégal foo mun a ne nekkal États-Unis nekkal fépp ngir uti sayduna muhammad fa ma qattahu fi shirqi wal garbi fadfadan ilal makkata ilal shamsi zaa'i ki ngay uti di ko xencu di man la man Cheikh Ibrahim kon kan mooy Mawlana Cheikh Ibrahim ka ngay uti mooy kan mooy sayduna muhammad mu ne ka ngay xencu di man la yaa ngi fi bàyyi ngir lu mu wax léegi sara sirruhu fi haykali wa ruhaayi walim wa ayni ayna muhammadin sara sirruhu fi heykali nañ wax jërëjëfee Baay Ñas jërëjëfee Baay Ñas moom la yàlla dogal ci ndogalam gu mag gi bàyyi ngir ñu xam ne du jëmm muhammadul basharu bal yaquuti bayna hajari danga naan bàyyi radiallahu anhu laakal bashar siiduna muhammad du nit si buñ ko xoolee ci may gi ko yàlla may wante bu fekkee doomi abdullahi la at amina doomi aadama la ولد في بير خيري موي ورسجي موي أربو فوربي فبي يرفع جور الزمان فلا يرى بمتق فاتك سوى علم ودين حنيف يزين بما وخارنا ينتي على عيسى دينا نيو ngir magga yab jawru zaman moy or bi gëna for ci jamono boko xamut moy ruhul azam kooku mooy ruuxu sayduna muhammad gi ruuxu googu lañu wax ne fa huwa tajali zaati bal huwa aynu waa fa mulk min ha ali kazal malakutu si moom la def tajali wante ki def tajali mu ne bàyyil muy moom yonte yàlla Moussa ba mu demee si tur si tuuru Sinaay yàlla bi mu ko na summil sa dàll wi ndax yaa ngi si xur si xuru sell bi bam ñaané yàlla gis leram gis jëmmam da ko ne Moussa lan tarani walakin unzur ila jabalin fa istaqara makaanahu fa sawfa tarani fofu dara amu fa dudut la ilaha illa allah yàlla si kemtanam bi yontu yàlla Moussa xolé yàlla def kemtanam si leer Moussa dafa xam fala ma afaq bamu mu xam nga lu mu wax dafa caalit mu ne wa ana awalul muslimin man maa njëkka a gëm yàlla man maa njëkk a jaamu yàlla fekk déedéet day am di nga am fanaa di am fanaa yow si sa biir fanaa gi moo nga yaakaar ne yow rek am fanaa yonte yàlla Moussa njëkkut a yàlla wax na ko qul in kaan li rahmaanu walad fa ana awalul abidin hmm? yow Muhammad wax leen ne su fekkoon ne yàlla am na doom yow yaa njëkk a jaamu yàlla باين الاول توحيد واول قائم واول موصول الى الحق بالغ اول توحيد موي كي نجيك ديف سر موي كي نجيك ديف توحيد موي كي نجيك ويتال يالا واول عابد كان مو نجيك جامو يالا غاني سيدنا محمد مو نجيك جامو يالا ده رسول واصل الناس ماء وجندل فلا انس في ذاك الزمان مؤنثا ñaar amu fa won dit wéttali kenn moo fa nekkon ndax innama amruhu ida arada shay an yaqula lahu kun fayakun Awa Njaay ñu ngi lay ziyara ñoy gis mo ngi maye rek ngir la ilaha illallah bi deysan waji dafa tok ji tuddu yàlla moy tuddu at ki muy tuddu at limuy tuddu mu mu bëri mu nekk ñett te dañoo ne laa ilaaha illallah Mawlana Cheikh Ibrahim jàngaloon na la ne mahma tara shay'an siwaahu fa addihi wala shay'an illallah fi ay marjaay waxtu boo demee ba gis fi leneen lu dul yàlla sànni walillaahi mashriq wal magrib fa aynama tuwallu fa sama wajillah mu ngi toog si kurus bi di tudd yàlla di def tawhid laa ilaaha illallah di tudd yàlla di def tawhid di wital yàlla moom muy tudd at ki muy tudd at muy tudd bi ko yàlla na mi dimbali si kës fu dafa dàq leer maanaam dafa dàq lëndëm gi fa laama ada u lay ashbatu shahidan bi annaka maskuru wa zikru wa zakiru ibrahima ndaw bu tudd yàlla dina toll si fanaane moom nekkatu fa ki fa nekk mooy laa ilaaha illallah jaam bi munta nekk yàlla mais yàlla dina nekk jaam bi ndax nee na ana jaalisun man zakarani man maa ngi toog ak tamay tudd jaam bi du dañ di ma bëgg di ma topp si nawaafilul xayri yi di ma bëgg xatta kuntuhu fa iza ahbabtuhu kuntuhu si beneen riwaaya fa iza ahbabtu kuntu samo lazi yasmau bihi wa absaaru lazi yabsuru bi wa aydi lati yabsutu biha wa rijli lati yamshi biha du deñ di ma jege si naafil xëy yi moom jaam bi ba ma bëgg ko su ma ko bëggee nekk ko kon jaam du nekk jaam munte nekk yàlla mais yàlla mun a nekk jaam bi jaam bi munte nekk yàlla mais yàlla mun na nekk jaam bi ndax moo ne su ma ko bëggee man maa koy nekk si hadiisu si bu wér kon ci laa ilaaha illallaah bi danga dem ba yëgatoo ne yow yaay tudd laa ilaha illallah kon waa ji bi mu demee ba yàlla nar ko dimbale yàlla xamal ko ne yaay kii tudd at li ñuy tudd at ki muy tudd mu nekk benn foofu doo fa gis ñaar doo fa gis ñett moo tax Cheikh Ibrahim bu wootee si jamono yàlla dimbale ne moom moo war a xamal jaami yàlla ndax Cheikhu Tijaan junjab mooy ne sa tati faydatu ala ashaabi wa naas fi gaaya ma takunu min a wa shidda jamono gi ñëw sama faydu bi feeñ jamono ju metti goo xamante ne yàlla dina dimbale kenn koo xamante ne mooy mooy yóbbu jaami si piyeb yàlla bi ngir dagg ñu hujub yi fala Cheikh Ibrahim tollu ne yàlla mi nek ci mom dafa nek xalimbaam moo tax Cheikh Ibrahim de man kenn la ci cioba rep yàlla yi rahimahullah Cheikh Ousseynou ñas daal na wax ne mooy cooba rep yàlla gi ndax al umuru bi yadillah yajriha kayfa yasha mir yëpp mu ngi ci loxo yàlla ni ko neex mu koy soppande kon Baay radiyallahu anhu kenn la woon ci jamono ngir ñëw ci jamono yàlla di bindee ci moom nu mu ko soobee moom suñu boroom nu mu ko soobee yàlla di bindee Cheikh Ibrahim di doxee ci moom di soppandeku ay melom ci moom fala ibu juuf taxaw ne kadu nu yeble yebleetul jëmmam faf na teew ku mel ni Cheikh Ibrahim du ku ñuy gisati ci jamono ci jëmm ci xam-xam ci melokaan ni sayyiduna Muhammad buñ la waxoon ne dina ñëwaat ci jamono jamono bu ko xon sax ñu ne ko fet nga kazzaba zamanu la ya attiye bi bés yi ñu ne ko kazzabat yaminuka ya zamanu fa kafir ku mel ni sayduna muhammad xalaf yaminan innahu dëhru mufradun fala yata'atta ay sanna bi daari bi jamono mënu tutu andi ku mel ni sayduna muhammad wante mawlana wa seydi cheikh baye barham son daf ne bëggal rek muhammadul bahru haali mu baxiru habibuhu muhammadu chamsu daa'i mu diw habibuhu mu ne muhammad moy sama bëhuru mooy sama hal mo baxiru habibuhu kuko beug rek sayyiduna muhammad mu géejal la cheikhou tidiane mi borom tariqa bi moy borom faydu bi buñ gi cheikh ibrahim nañ gi cheikhou tidiane ndax mo ne won inni marfuun yarmi min baidin man may kanu bi fa may dóor mi ñu leen ko ñu ne ko bi ay sukkaan mu ne leen mi ahfadi law ni wa min sukkaanil baidin man cheikh fa ma jëm der bi mii ñu leen ko min ahfadi law ni sukkaan ba dafa sori moo tax bi mu ñëwee fii ci tey bañ a seen daanu tey bañ a seen benn benn béyti rek waroon na tax képp kuy taalibe Cheikh Ibrahim nga dox dim utti tey bañ a seen رب العباد غافر الذنوب وقابل تقبل تقبل توبي من تيب جئتك إلهي طائبا وطالبا وقادرا وقادرا بمنزل مبارك تنظرني وفعنا جميع من قصدني وفعنا جميع من قصدني loolu rek doyoon na bàyyi ñaan gim ñaan ne moom yàlla du bàyyi du wax lu yàlla dul كيف كو خامتيني فك سينما سي تاي باني سين غي امديت بايا كو واخدي امديت اجيرني فيو دال ام لن وارزاقي لزمرتي سما مبولو وحزبا اخلاقي ام يرغو رفت ام يرغو باخ ام جيكو يو تيد كور لا غيس ناولا لولو مو يرب شي ابراهيم وحزبا اخلاقي مو يرغو كاوي مو يبغ لو باخ mooy di def lu baax mooy boo bëgg mboole mindaa fon yi si fulla si fayda kenn du la gën a gëm yàlla wante kenn du la gën a bëgg Seydina Muhammad